laylatu mawlid di nabi laylatu maawi ruya bi laylatu maawi taabi wa tuuri shita azumi ba tey kon ci Touba Ndigal Cheikh Abdoul Fattah Mbacke ñu toog nag ak genn leeram mu di euh, Serigne Baye Galas Mbacke Mbacke Balla maa ngi lay ziar. ñoo ngi ziar bu baax si Ahmadou Seck waa mais xam nga yow moom euh, yow yaay directeur des programme Ndindy Actu yaa féete fii ci Touba alors euh, wax dëgg yàlla comme daaw ni ñu ko defee woon ah euh, ñu fekkaat la fii ci wetu sëñ bi nga ànd ak moom gàmmu gi ak mbokk yëpp ak njaboot gi yëpp d'ailleurs ak taalibe yi donc lan nga jàngat ci bis bi. waaw ah, ñu ngi siyaar bu baax a baax baax tey nuyu Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ni moom moom fii ñu nekk tey di Touba Touba Ndigal. di eh, dëkk boo xam ni waaye juróom wa xaritam wa Cheikh Mamadou Fadal moo ko moo ko moo ko joxoon ci ay eh, rakkam yoo yoo xam ne àndoon ànd na ñoom ku ci mel ni Cheikh Abdoul Ahad ñu firndeel loolu ba yàlla dogal ñu tax ay jamono Cheikh Abdoul Fatah woote fi gàmmu gi nga xam ne mooy dundal bisu juddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag wax dëgg yàlla ñun am nañu amaan nañu amaan nañu mbégte lool ci àndaat ak moom bis bi ndax wax dëgg yàlla nañ ko daan nañ ko daan nañ ko daan defee rek at yi jàll yëpp ren jii wax dëgg yàlla mel na ne bis bi dafa gën a neex nu mu daan nu mu neexee loolu nag sant yàlla di sant na di sant Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam moo ko joxoon te waxoon ko ci ay kaddu yu am solo yoo xam ni jàpp nañ ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy teg suñu bët baax baax baax ndax waxoon na ko ni ko dëkk bi lépp loo dëkk di am dëkk bi dina ko amee dëgg yàlla gis nañ fi buñ gisutu yëpp it. ñu gis yu ñi gis yu ci ëpp te jàpp nañu yëpp dina ñëw comme na mu ko waxee woon ndax Cheikh Mamadou Fadal ay waxam moom du dellu ginnaaw mukk ñoo ngi koy sant daal bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak ñun teel bi yëpp te di leen sant yéen wax dëgg yàlla def ngeen ci liggéey boo xam ni daaw ak ak jii ak daawar jéeg sax yaakaar na liggéey boo am solo la boo xam ni tax na ñi nga xam ne miinu ñoon fii dëkk bi ñu mën ko bu baax a baax a baax ndax yu mel nii day baax ci yenn dëkk yi nga xam ni suñ borom dogalugu teenuk seenuk siiw lool lool lool waaw xaw a xëcc ci tuuti te yéen yéen wax dëgg yàlla fépp foo xam ni euh, euh, mbir maa fi yegg rek jàpp nañ yéen bokk ngeen ci mu yoon Daaktu ñaan suñ borom dimbali leen boole ñu dimbali ñun ñëpp ba fépp foo xam ni ab télé dina fa yegg man ma wax ab site ab site internet waaye ab dina fa yegg yéen ngeen yegg fa ndax borom bis bi mën na loolu mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom la ñuy defal bis bii di Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne yonente bi la ñu ko direct moom it mën na lopp loolu ñoo leen koy ñaanal bu baax a baax a baax Cheikh Amadou Seck ah, waaw euh, xam naa nag duma la teelu yàgg waaye ginnaaw yow da nga di bokk ci njabootuk sëñ bi ba pare di yëngu ci wàllu xasaay di ñu gis ni récemment lu jiitu màggal gi sëriñ euh, bi tedd bi Cheikh Mountakha Mbacké dafa woote woon bisub xasaayit alors bisub bisub bisub xasaayit yooyu sëñ bi mu mel ni dafa am euh, dara lu inspiré sëriñ bi pour mu def ko yow euh, en tant que jànkatu xasaayit di ci gëstu lool la la inspiré sëñ bi. waaw man de yëg-yëg laa ci am rek yëg-yëg yëg laa ko jàppee mhm. ni sëñ moom dafa am yëg-yëg comme ko waxee woon ni am yëg-yëgu sant sëriñ Tuubaa comme ni suñ Tuubaa daan amee yëg-yëg di tagg yonent bi ci ay xasiidaam nga xam daawul noppal mukk man nga damaa jàpp ni sëñ bi daa amoon yëg-yëgu santaat Sëriñ Tuubaa sax laay ci santuk fësal santuk fësal mooy mën na koy sant ci biir ci biir fa nekk waaye santuk fësal mooy yéen a yéen mbokk yëpp ànd ci ñu santale ko ko comme ni ko bi digle woon nañ ma santal yàlla nañ ma boole santal ma yàlla moom damaa jàpp ne dafa amoon yëg-yëgu dajalee mboolem mboolem mboolem taalibe ñu santale ko sëriñ bi ndax moom li mu wax de li ma wax li ma waxoon leer na ci woote boobu mooy dama am yëg-yëgu murid yëpp dajaloo dellu Serigne Touba loolu la wax ndax Cheikh Abdou Farah mi ngi koy nettali na dafa am dafa am benn benn taalibe benn taalibe bi Serigne Fallou bu ñëwoon ci moom ni ko man de gëmuma ko Serigne Touba jur gëmuma koo jur yow rek laa gëm Serigne Fallou ni ko ah loolu yow mën a lijjanti jàppal ci man ma jàpp Serigne bi kon ñu ñun si mun taxaw dañoo bëggoon leeral ni ñaan yàlla direct mu ñun ñun ëpp na ci ñun waaye nañ ko jaarali Serigne bi xam naa loolu bëggoon wane muy ne bu ñu ko jaarale di sëñ bi rek sëñ bi mat na intermédiaire maam mën na ko mën na koo mën na ko mën na koo defar wax ji maam leer nañ ci suñu borom loolu dafa nekk d'actualité ah ma gis naa sax xu euh, xuddaamul xadim ñu gën def ci benn euh, communiqué mu di ay attaque yoo xam ne dafay jóge ci jamono yi de partout ah. ñu seet ay nit ñoo xam sax ci njabootuk euh, sëñ bi entre guillemets lañu soqee ko Euh, dëkk Touba ba pare di attaquer yoon wi ak ñeneen ñoo xam ne feneen lañ nekk di attaquer yoon wi loolu ban message nga ciy lancé. waaw ñun nag moom fenn la ñuy teg suñu tànk mooy ci sëriñ bi rek képp koo xam ne daal jox nga ko cër ba ko yàlla jox danañ danañ la jox la cër danañ la jox cër ba nga yellool waaye koo xam ne nag joxoo ko cër moom duñ duñ am lu ñu wax yow. léegi yàlla loolu moom dañoo mal place ngir wax ci ndax. comme comme nitu ki yëfi kilifteef la moom daanaka dañ koy bàyyi sëñ bi lépp loo xam ne wax na ko wala lépp loo xam ne bëgg na ko ci yëf yooyu incha allahu ñi di wax yéen kenn duñu fa jiitu laylatu mawlid di nabi ta maawi riyabi laylatu maawi taabi